sallallahu ala nuru muhammad mbokk yi Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu yéen ñi nga xam ne ni yeneen seetaan kanaal bi ñu ngi leen di invité ngeen abonné te bés close bi nga xam vidéo mu def rek ngeen mën koo am seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad borom karatay ni ñu ngi leen di siyaare bu baax tey nag ñi ngi waxtaane ñaari nit nga bëgg a boole leen muy wàllu noob wàllu juboole ndax dafa am noob am taskiir am noot yooyu yëpp bokkul ñaar ñi xam ne dañoo bëgg a sëy wala ñi ngi nekkoon ci biir néegu sëy muy diggante góor eh, ak ak ak jëkkër am na nag benn téere boo xam ne ne bépp jigéen boo xam ne ne yaa ngi nekk sa biir néegu sëy bëggoo beneen jigéen fekk la fa maanaam ñu koy wax boo ko takkee doo am wujju moo téere boobu moom moo xase ba am yow ak sa borom kër beneen jigéen du la fa fekk ndax doo am wujju WhatsApp Business from plus 221 77 128 00 70. Message Isman tout baladëk. saa boo soxlaa sa jëkkër dara nga xam ne ne bëgg nga mu lay jox ndax dafa am ñoo xam ne ne yor na lu ne waaye loo leen laaj duñ ko jox mën nañ ko joxe sax si àll bi nga bëgg yow sa jëkkër di la jox fexeel ba am saafara boobu raxase ko sa kanam ànd ak moom loo ko laajati dana la ko jox boo ne ko nangam ak nangam sax mu defal la ko. te du ko tay lépp nag ay wàllu noob la si diggante jëkkër ak jabar am koo xam ne ne rek da nga koo bëgg soxna wala yéen ñaar yéen a ngi nekk nga bëgg koo takk yooyu tamit ah, da siy am am yoo xam ne ne nag lu nu koy wax trois jours lay doon am yoo xam ne ne léegi foo mën a jaar trois jours moom du ko génn ndax dafa am jigéen yoo xam ne ne àndandoo bi ni àndal moom mooy contre liggéey bi nga xam ne ne pour nga jàpp leen day xaw a jafe waaye boo génnee sarax bi rek sarax boobu dafay génn am ñoo xam ne dafa am heure boo leen di liggéey ndax du heure bu la neex rek jéem see jàpp nit de heure bu la neex bu jéem see noot nit heure bu la neex jéem see takk nit déedéet saa boo demee nag bay jëflanteeg boroomi milliard boroom milliardaire wala mu dig la dara wala nga bëgg moom muy jël si alalam di la jox am na loo xamee ne moom ngay def sikkar ko trois jours lim la diggoon lépp dala koy jox si lépp si wàllu boobu moom mooy wàllu tafsir ma nga xam ne yow soxla nga nit te boobu defar nañ si sax ndomba defar nañ si ndomba boo xam ne ne moom bu leen nit diggee milliard du naan la dinaa la ko jox di laa koy boo xasee ba am ko moom mooy yëkkati lim la digg yëpp jox la ko waaw kooku moom moo tax ñun dañuy bëgg nit ki di expliquer yow di wax ak yow li ñuy wax doon lu leer nañ lu wóor ah nit ñi léegi dafa am ñoo xam ne liñ lay wax dara du si dëgg am ñoo xam ne naan la sama jëkkër nangam wala ki ma nekkal nangam te dara du si dëgg boo xoolee danga nga ko xam moom moo tax booy wax day wax lu leer ndax dafa am liggéey yoo xam ne boo xasee ba koy def moom def ko waaw ah, moom moo tax te ñun xam-xam jaral nañu lu ne. xam-xam jaral nañu lu ne bépp xam-xam boo xam ne ne bëgg nañ koo gëstu xam ko dañuy jaral lu ne ñu gëstu ko xam ko teg nee waaw nga xam ne ne moom dañ koy xam teg nee nga xam ne ne lépp loo xam ne ne wax nañ na ko si lii si xam-xam bii def ko dafa am jubóole yoo xam ne saa boo ko defee keneen mënu koo yàq bu jigéen bu ko jigéen defee keneen mënu ko yàq bu ko góor ndax góor am na saafara boo xam bu ko xasee ba raxasee kanamam beneen góor du tiim jabaram beneen góor gu ko tiim day yoo beneen góor munu koo tëddee kooku moom eh, dafay am am boo xam ne ni jigéen ko xam bu ko raxasee kanamam góor gi fu mën a dem xelam dootu nekk si beneen jigéen bu dul moom loolu dafay dafa am loolu moom am na bu baax boo xam ne ne góor gu ko raxasee sa kanam sa soxna kenn du ko féete féete féete kaw maanaam kenn du tëdd ak moom ku dul yow sa soxna ba beneen boo xam ne jigéen bu ko raxase sa mm, raxase sa kanam sa jëkkër mënul dem fenn ba nekk kenn ku dul yow nga xam ne daf lay jox bopp yow fu mu nekk yow lay xalaat yooyu moom Kun bii rek nga koy déggee te dafay wóor te li ñuy nii xam-xam danoo jaral lu ne ñun xam-xam danoo jaral lu ne nga xam ne ne eh, yow daal kaaraange daal baax na te ngeen jéem a wuti wuti kaaraange bu baax incha allahu rabbi